dikkati na ab njombe bu ñu nar a jàppem siiw day moo nar am ci réewum Sénégal turbine yéene kaay ne ma accident ba am Kaffrine tax na ci moment daal ñu fàtte sàcc yi nga xam ne ñoo nekk ci république bi yéene kaay bi média bi ne leen rapport cour des comptes bi daal dina fiy jàpp ay kilifa ni leen nii ñuy sàcc alalu askan wi gaa yi nag di fàtte fàtte lu mbir mi mel na ku concentré wu ci coowal accident bi metti na turbine yéene kaay ne ma moo tax askan yóbbu seen xol ak seen jëmm yóbbu ko Kaffrine turbine ne ma gouvernement gi profitoo ci di def la ko saaf moom président Macky Sall moom ma ngi cay libéré ay détenu yoo xam ne nii politique dong moo taxoon mu jàpp leen bokk na ci Papa Alé Niang Les Échos yéen kaay ne ma Papa Alé Niang moo mee ni ki am na liberté provisoire waaye nag Papa Alé Niang dañ koy teree wax ci coow li muy ci public ak ci privé jël nañ passeport am te dañ koy teree tukki tribune yéen kaay ne ma waaye yoon ci boppam daf caa profito daal di sàllar naan sër du ma wodd du ma topp kenn laas yéen ne ko déet déet rapport cour bi nag jébbal mu jëm nag ci gestion de pour cour des comptes bi moom ministre de la justice daal dinay saisir procureur fukk ak ñaar ci doomu aadama yoo xam ne takkee nañ ci ñu daal di leen di wiise nag fas leen yéenee topp ni ko cour des comptes bëggee am na cëb ministre boo xam ne day làmbaay ma ngay ñaaw ci moom bés bi le jour na ña ngi koy toppee lu doy waar moom représentant bu FMI di rafetlu lool Sénégal dogal yi nga xam ne jël na ko suñ ko di yéene ma waaye sàll ngaari lam tooro burgete dafa mën a raxas waayam mën a setal waayam bari na ci rapport yoo xam ne jàll na fi ay recommandation yoo xam ni jot na ko moom président waaye saa su nekk daf leen di raxas ba nu set wecc Walf Quotidien ne ma en tout cas FMI moom ma ngay xaar suite ba nga xam ne ña ngi koy jox rapport Cour des comptes bi représentant résident bu FMI moo ko daal di xamle bés bi la jour na ña ngi leen di topp de ndax saa si tembe moom procureur jot na seeni dossier Walf Quotidien ne ma FMI it ma ngay wax ci subvention bi nga xam ne ñi ngi koy def ci wàllu énergie Sud Quotidien ne ma nguur gi day daal dina yokk paas bi fas yéene yokk guuta Momad Cissé vice président bu ASCOSEN ci yéene kaay bi naan dem ak dikk wi daan ci am jafe marchandise dem ak dikki daan ci am ay jafe-jafe le tey mooy yéene kaay ne ma sar xool la dëgg-dëgg moo am de diggante président Macky Sall na ak syndicaliste yi ndax FMI moo weñ loxol gouvernement ba mu yokk njëgal essence ñoom syndicaliste yi naan daan nuñ ñu dégg te du yàgg ndax lii duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg vox populi ne ma beneen coow accident bi mujjee am te ñeen fukki bakkan daal di cay faatu mat na ñeen fukk ka ca mujjee faatu Mohamed Touré la tudd fanweeri at ak juróom ñaar la am nekkoon ab gardien ca collège Lamine Niass boobee tax na chauffeur si rabatteur importateur pneu saa si tembe nag ña nga fas yéene jàmmaarloo ak góor gouvernement defante ak moom nee ñu horaire yi nga xam ne guddi la góor gouvernement gi ne moom lay daw du am tey du am ëllëg la nga xam ne it moom moo di ay tere yu bëri yu gouvernement gi daan ci xeex ak moom Moustapha Ndiaye bu syndicat transport bi naan koon bagage yi moomu ñu ko client yee ko moom bu ngeen leen teree bagage fu ñuy dugal seeni valise góor a xuma naan yëpp mun ñoo defee visite technique fii ci Ndakaaru mënta ne te naan dañuy nangoo gum dogal yi waaye diis lool ci kaw chauffeur si jaaykatu pneu occasion yi ne mooy seen tere gi du mujjee fenn ndax mënta ne coow li coow li bugaan ci 24 heures yéene kaay naan ana goro national moom Mansour fay ci boppam dañ koo war a dàq ndax nag géy ma nga naan la fi jëlee Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen waru fee bàyyi Mansour te naan kon la nga xam ni moo fi indee ñoo ci transport yi du kenn kudul Mansour fay mi nga xam ne sab goro jël ngeen i mesure waaye da ngeen leen war a planifier xool ni ngeen koy lalee xool it ni ngeen di waxtaanee ak ña nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi ngir jàmm am le mandat yéene kaay ne ma bugaan géy dani Mansour Faye la bëgg mu able nee Assemblée nationale li waru ko fee bàyyi yéen kaay bi sampub laaj ndax de mu Mansour boobee absolution la moom critique yéen kaay sampub laaj de ndax moom Mansour Faye war naa nekk béyub sarax bi ndax nag accident war naa am ay nit faatu ca gaa yi ne Mansour ci boppam dafa war a able critique yéen kaay ne ma mbaa duñ ko jël bi jëlaa ñoo ñebe te Mansour ca dëgg-dëgg yoonam nekku ca Bougane Gueye Dany ci 24 heures yéen kaay ne déet mooy ministre des transports bu jëloon dogal yi nga xam ni moom moo ci war lii du am Mansour na able le quotidien le quotidien yoo xam réewum Sénégal ku faatu ci accident ñoo la faat jàppal croisement Mariama Niass fii ci Ndakaaru entrée bu bari Bargny axe kër Martin Tataguine janna malaari jarume Sinthiou Malem ak Koussanar ci le Boubacar ak yeneen ak yeneen ndax nag taliya ci boppam ñoo baaxul rax ci dolli woto ya fay daw daal di màgget lool l'enquête ko di jeene en tout cas jël nañuy mesure waaye nag daal di koy appliquer dina doon coow l'observateur ne foofooy danger bi de mesure yi nga xam ni jël nañ ko ndax nag boo moytul ci choc beneen la ñu jëm muy diggante gouvernement geeg transporteurs yi biir yéene kaay bi naan confrontation du am ndax saa si tembe nangu rek boobu sàll ngaari lam tooro burgéde day ma nga ca waxub ñetteel bi mandat ci biir l'indépendant yéene kaay société civile bu Sénégal di woo Union européenne naan leen wax leen ci président Macky Sall mii mu gàntal ko teg ci suuf lu ko mooy moom président Macky Sall day taal réewum Sénégal tribune yéene kaay ne ma coow li coow li ma nga ca Ismaïla Madior Fall moom Ismaïla Madior faal ci boppam nee na ñaari million carte buñ ko jaayee moom président Macky Sall mën a amaat beneen mandat tribune yéene kaay naan kon ay jógee ci ministre daal di bàbbeeku ci politicien bu far direct news daal di dama coowal troisième mandat bi deme nga yàq rek diggante Amadou Ba ak président Macky Sall mbaa yàqu ko ca Tamba protocole ba président respecté wu ko keroog ci conseil des ministres bu mujjee danoo janoo ca du protocole mbaadu lii nag day wane ne diggante Amadou ak président neexatul ba muy jóge Tamba moom président Macky Sall Amadou Ba dalalu ko bañ ko laajee ci ñetteel bi mandat moom Amadou Ba dafa ne loolu affaire président Macky Sall la Farba Ngom naan leen wax day leer président Macky Sall mooy sunu candidat candidat Amadou Ba naan leen man daal fu président Macky Sall nekk laa nekk ci coowal cour des comptes yi moom Amadou Ba dafa ni woon du ca taxee du ca wax xam le ni woon ay jëwrin dañ ca taxee daal di leen di cité moom président Macky Sall naan kon étudier ba ma ngay neex ba tey l'indépendant yéen kaay ne ma en tout cas ci accident bi ña nga xam ne ñoo ca gaañu daañu am benn million ñebootu ñi faatule daal di am ñaari million booba l'exclusive yéen xoolal askan wi ne seen dund ñoŋee Ibrahima Sissoko njiit la gannaaw ba nu taxawalee ay centre ya ñuy jàngee téeméer ak ñaar fukk ak juróom ciy daara ñu dugal leen ci séemi ñetti téeméer ak juróom benn fukk ciy soxna ñu tàggat leen financé leen ci tànkuk na gën a taxawal mouvement ba la ñu ne dugal seen loxo ci tàggatu gi waaye tam insertion ndaw yi coow li coow li 24 heures yéene kaay ne faaw ñu wutal ndaw yi solution de ndax ci àdduna wërngal këpp ñeenti seconde yu weesu yu ne benn xale faatu na ci àdduna wërngal këpp ci àdduna bi ci 2021 bi ak lu mën a am yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm nag des fois nga ma ba ma ba ne rëq nga ma. ñu waxtaanee CHAN bu Algérie deux présentation bu Ouganda la ñuy def tey ji deuxième adversaire bu Sénégal poule B. waaw poule B bi kon euh, présentation bi Ouganda waaye jàppal na tey gànneeg Sénégal yi nag kon ni ki démb la ñu nag euh, jógee foofu ca euh, Tabarka ca Tunisie bi nga xam ne foofu la ñu amalee ab seen stage nag ngir lu soxal juróom-ñaareelu édition bu championnat d'Afrique des nations ñu gën ko xam ci CHAN jagleel ko nag joueurs yi nga xam ne ñooy football ci championnat locaux yi nekk fii ci Afrique Sénégal nag kon démb lañu ñu wëtali nag foofu ca anaba ca diwaanu Algérie bi nga xam ne groupe B bi foofu la fas yéene nekk Sénégal ànd ci ak kon ñii di waa Ouganda. Côte d'Ivoire ak République démocratique bu Congo di fàttali nañ ne ndaw Pape Thiaw seen jongante gu njëkk dinañ ko door na kon ni ki fan ak ñeent ci janvier bu 19h jotee ngir nag lu soxol CHAN bi seen beneen jongante bi nag seen diggante ak Ouganda lay doon le 18 le 22 janvier seen diggante ak ñi di waa Congo Ouganda mi ne sax tey jii nag la ñuy taxaw gannaaw nag démb soxna Fall la ñu defalee ab jàngat ci Côte d'Ivoire kon tey jii nag jàngat bi Ouganda la Ouganda na ci yi nga xam ne moom ak ñii di waa république démocratique bu Congo bi nga xam ne moom ak Sénégal ñoo bokk poule B bi bi nag mooy juróom benneel yoon muy participer euh, ci compétition bi waaye nag ñu seetlu ne moom ba fay nag dafa am ay jafe-jafe ngir génn sax ci match de poulam te monte ni Uganda ñu bëri ñoo yaakaaroon ne sax du bokk ci bile euh, compétition gannaaw ba ñu amee woon ay jafe-jafe euh, jëm nag ci wàllum koppar ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall Ouganda mooy ñaareelu adversaire yu gaynde yu Sénégal yi ci bile jongante pays Afrique australe bile bokk ci ñi gën a régulier ci championnat d'Afrique de nations ñëwul woon ci édition bu njëkk ba waaye jongante na juróom yi ci toftalu CHAN Algérie bile mooy seen juróom benneelu yoon mu nekk ab record naam am nañ expérience ci tournoi bi waaye Ouganda benn victoire ak juróomi match nul ci fukk ak juróomi match yim jot jongante musuñoo rek dépasé phase de groupe yi yëpp atum 2014 la woon ñu terminé troisième am quatre points ci édition bu mujj CHAN bi ci 2021 Ouganda moo jël ndàdd ci groupe C bi am benn poñ kese nekkoon ci ginnaaw Togo Rwanda ak Maroc at mile nag naam amoon na ay jiixi jaaxa ci seen teew ci bile CHAN ndax manque de moyens financiers far nañu ñëw Ouganda ñu koy xaar xëy na mu def lu gën li doon am ci édition yi la ñu passé jaajëf soxna Fall ñu waxtaanee ko nawetaan zone 8A bu sanjara ak zone 8B bu Linguère amal nañu seen i final ci fair play. waaw dañu koy dooree foofu ca Sandiara nekk ca diwaanu mbuur duka euh, zone 8A bi nag mujj nañoo amal nag euh, final lu euh, lii di soxal wàllum nawetaan yi kon ca Sandiara ci teewaayu nag kii di président bu Sandiara football club nekk premier juin maire bi en tout cas ñu amal ko nag ci euh, fair play ñëw lu kon euh, kàdduk euh, kii di Aliou Gningue ci micro kii di Alioune Badara Sonko. joué nañ ko dans le fair play donc amul benn violence vraiment nit yi ci jàmm vraiment ñibbi ci jàmm loolu ñu koy rafetlu bu baax a baax. donc lii dafa nekk loo xamante ne nii continuité ci li nga xam ne mooy suñu conviction ci li nga xamante jël donc mooy. suñu vision pour développer euh, donc le sport au niveau de Sandiara euh, ndax le maire docteur Serigne Gueye Diop nga xam ne euh, donc mooy le maire de Sandiara vision mooy nan la ñuy def ba sport bokk ci li nga xamante ne mooy suqali économie Sandiara te ku nekk xam na ne loolu c'est possible je pense soo gisee ay ñoom Sadio Mané ak yeneen ak yeneen nga xam ne football du caaxaan donc ñun nag li nga xamante ne nii moom la ñuy def mooy nan la ñuy def ba mettre en place équipe bu baax tey def nañ ko muy Sandiara football club leneen li nga xamante ne nii moom naa moom la ñuy def mooy nan la ñuy def ba am ay infrastructure yu baax ci loolu tey ku nekk xam na ne euh, Sandiara soxla na stade bi nga xamante ne nii dafa am gazon mais soxla na na aussi stade boo xam ne dafa am ay projecteur soxla na na stade boo xamante ne ni aussi dafa am tribune ci loolu la monsieur le maire di gannaaw kon diwaanu Sandiara ñu wutali ca Linguère foofu nag tamit seen zone B bi moom amal nañ tamit seen ko final foofu ca stade Cheikh Tacko Koumé ca diwaanu Linguère en tout cas mu nekk final boo xam ne mbooloo mu takku nag woon nañ ko ca pare bi nag en tout cas def na nag kim kattan ba final la mën a jaar ci yoon ci leeral ñu ànd ci ak Mass Ndiaye. waa zone B bu Linguère tëgg ab final bu mucc ayib édition deux mille vingt deux parrain bi di Moussa Sow coordonnateur de la COJER génne ay koppar yu takku ngir bégal ndaw ñi. Euh, dañ fee ñëwoon pour en tant que parrain ci li nga xamante ne moo nekkoon final euh, diggante ASC Tandem ak ASC Déggo gis nañ ne nag ASC Déggo euh, nërmeelu daanu na ci kanamu ASC Tandem ASC Tandem donc moo gagné ñoo ngi félicité bu baax ay ASC Tandem euh, di encouragé ASC Deggo gis nañ ne ñoom ñëpp football nañ wax dëgg yàlla maintenant nag c'est Linguère ki gañ Linguère moo ci gagné amul amul benn équipe bu ci perte mais c'est Linguère ki gañ président zone B di Daouda Gaye fesal ak mbégteem donc euh, amul lu dul kontaan amul lu dul euh, sant parce que football foo agréé la rawatina final ñu ne fête la donc ndam du dem ndam du dikk parce que kenn ku nekk am nga looy yóbbaale. Euh, bilan bi moom euh, c'est boo ma ne c'est un bilan positif bilan bi positif na parce que daanaka ba ñu commencé ba léegi. pratiquement amul gàllankoor. stade bi fees dell supporters yi jógee fu ne. ngir ñaax seeni jour moo tax ñu seetaan ab final bu neex bëri ay raaya. jaajëf ñu waxtaanee leneen lu soxal ba tey tàggat yaram JO mille vingt 2026 IA bu Dakar di sàkku autorités yi ngir nag ñu taxaw leen ci wàllum infrastructure sportive. waaw jàppale nag kon gannaaw nag ba ministère euh, de sports ak éducation nationale signé nag lu soxal lii di Jeux de la jeunesse Dakar deux mille vingt six te loolu tax na sax ba rek ci yi ngir nag ñu gën a nag dooleel l'école yi jëm nag ci wàllum infrastructure ndaxte gis nañu daal li ñu mel bu ñu ko defee lii di relance sport euh, scolaire bi dina gën a mën jaar yoon te Sénégal nag dina am taxawaay gu mucc ayib ci yooyu li nag euh, jut. Euh, ci sax euh, kii di euh, yaa bu président inspecteur bu yaa bu Dakar sax di bu Boubacar Sadikh Niang moom nag moo yëkk yëkkati yooyu la kàddu gannaaw ba ñu amal randonnée pédestre bu IEF bu Parcelles Assainies ngir na nag relance su seen ay sport ñu teewlu ay kàddoom. Jeux olympiques yi Jeux olympiques yi deux mille vingt six ministère éducation nationale ak ministère des sports signé nañ déjà convention boo xamante ne daf ñoo war a ñu ñu ñu jël ñu jël également suñuy suñuy euh, suñuy matukaay pour permettre effectivement une bonne participation du Sénégal en 2026 te léegi lay tàmbali dafa am ak loo bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg mbir te amoo foo ko defee Dakar quand même il faut le dire am nañu problème mu infrastructure sportive moo tax may ñaan suñuy kilifa ñu ñu jàppale ñu ci wàll boobu ñu ngi ciy def ay jéego ga mais ñu gën ñoo dimbali ba infrastructure scolaire yi infrastructure sportive yi ñu gën a ñoŋ gën a bëri ci sunuy école pour permettre xale yi encore une fois ñu ñu ñu ñu wane seen bopp parce que effectivement ay yeneen Sadio Mané ñu ngi fi ay yeneen euh, Amady